maa maa ngi tudd Mokhtar Sy Mokhtar Sy maa ngi tudd si maa maay la président du conseil local de la jeunesse de Notto Goudiama bon daño ñëw fii tey pour waxtaan ak euh, yéen presse bi ci li nga xamante ni moom la maire bi def fii ci Notto Goudiama parce que comme ni ko sama confrère Yankuba waxee dañoo waxtaanoon ak moom ba mu jox ñu benn site ni ñu kanamu CM bi dinaa leen ko defaral benn stade multifonctionnel day am terrain basket et tout ça lépp lu jeunesse si soxla rek dama koy def ci terrain boobu bu ma ko defaree ba jox leen seen caabi ci seen loxo soog a dëgër puis toj terrain bi pour def ko marché mais bi mu waxee loolu defu ko dafa jekk-jekk mu changé site bi yóbbu ci beneen site à notre grande surprise ñu jekk-jekk site boobu ñu ne jëlee na ko fa am na beneen site bu ko benn vieux jox benn tool tool boobu bi mu ko ko joxee waxu ci ak jeunesse bi laaju ñu ndax bëgg nañ ko xamu ci dara waxut ak ñun te li ñu ci gën a métti mooy site boobu bi ñu ko ko joxee au lieu mu def ko terrain daf ko xaaj ci digg bi en deux parties benn partie bi ko clôturer beneen partie bi mu commencé ko morcelé di ko jaay ay parcelle parcelle frais de bornage 500000 francs jeunes yi yu nootoo fii kan moo fi am 500000 yooyu def frais de bornage ah! amuñu ko amuñu ko ñu jógee ci loolu bi ñu joge ci loolu mu commencé ñu fubal ba egg final di préparer suñ final ñu xëy xëy mu dugal ay engins daaneel mur bi ne day toj terrain bi daf koy def marché te nawetaan ñu fubal ba egg final mënul may sax jeunesse bi àggale seen final yaakaar naa maire boobu nekkul maire boo xam day jàppale ab jeunesse am. jàppale jeunesse am leen. te li ñu gën a métti mooy li Yankoba wax marché bi dafa bari ay clause yu ci nekk conseil yi kenn maîtriser ko maire kese moo xam lan moo nekk ci marché bi parce que marché bi nee na marché bi 150 millions la te marché bi plan bi mu ñëwoon ay mbaar la yoo xamante ni. dañuy butime terrain bi rek defar ay mbaar ci digg bi ni fii la ñuy jaayee lëjum bi loolu mooy marché bi li ci des nag mooy day def beneen plan boo xamante ay lotissement lay doon ay cantine yu muy def ci biir terrain bi te cantine yooyu lan la ci bëgg jaay def ci poosam wala mu ànd ak benn privé ñu ngi dégg ni mi ngi négocier ak benn privé boo xamante ni mooy tabax cantine yooy di ko jaay mais ñun jëlee su nan la ñuy dëkki noto ñu jël suñu terrain nangu ko boole ko def ko ay cantine un privé ñëw di ñu ko jaayaat muy ñëw di ko luyewaat yaakaar naa loolu mag ñi war nañ ko xeex jigéen ñi war nañ ko xeex mais ñun jeunes yi ñun lañ jiital pour ñu xeex loolu. dur ko nangu bu loolu weesoo problème espace dafa manqué ci dëkk bi commune bi benn terrain bii moo fi am fii la ñuy defee sport yëpp fii la ñuy defee sport activité religieuse sax fii lañ koy defee monsieur Macky Sall bi mu nekkee directeur de cabinet en 2007 fii lañ ko wàcce fii la wàcce ak ay hélico jeunesse noto yëpp ànd ak moom gunge ko. mu département kon terrain boobu